kilifa gu tedd nekkoon na alim rabbani nitu yàlla ku fés. koo xam ne eh, jullit yëpp war nañoo yittewoo mbiram war koo xam ngir li ak dundam jëmmal ci njàngaleem lislaam da am lu nit ñi réere ba tax ñu réer te moom loola réeru ko war a ak dundam ngir tegtaloo ci dundam gu barkeel googee jëmm la joo xam ne mooy sin wu seexi mooy texub sëñ bi <laughs> kon nag loolu loolu rek doy na ah, loolu rek doy na kenn koo xam ni mi ngi bokk ci góor yàlla yu mag yi ñi nga xam ni eh, eh, ci njabootuk Mamour Anta la bokk <coughs> sunu borom subhaanahu wa bi mu namee xettali jaam ñi gindi leen tàbbal leen ci leeru ngëm ci la leen xeewalee jaamam bu mu tànn di liggéeykatu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaam ñi yor mission boo xam ne nag yàlla da ko jox ndigal ne ko fas daaw digal ko ne ko wooteel ci yoonu yàlla te nga xamal jaam ñi ne leen yaay weeruwaay wi di muccukaay bi kon képp ku bëgg yiwu àdduna ak alaxira ni ñëw wéeru ci yow woote bu màgg bii nag ba ko xaadimu rasul sallallahu Alaihi Wasallam defé ci mbacké kadior anda ci lañ ko wuyu and ak mom bayyi lepp lu aada wala ak mbokk te jital pas-pas ak irada motax tax bobu ay mbokki bopam ñoko ci njëkk wuyu jappalé ko ci té ràññee ko ci lool ci liggéeyal ko balaa tur muy ahmadu ibn jaara ahmadu ban ba doomi soxna jaara sëriñ Moor moom soxna Jaara ñu gën koo xam ci maam Moor Jaara Mbàkke maam Moor Jaara Mbàkke ñu gën koo siiwee ci magi mag a Cheikh Mouhamad mi ñu gën a xam ci sëriñ Mamar borom saam a Cheikh Mouhamad Jaara siiw ci sëriñ ma Moor Jaara radiallahu taala anhu di magi mag di magi sëriñ bu mag bi ñu bokk lépp mi ngi tudd Muhammad yonent ya, bi sallallahu alaihi wasallam sallam ko Muhammad ñu gën ko xamé ci mor tax mor moy Muhammad rek Muhammad ku tudd Muhammad la woyé mor waye waaye tudd deug dëgg Muhammad yonent bi lañ ko tuddee sallallahu alaihi wasallam. serigne mam Mor Mbacke mom soxna jaara mi nak di borom sam. ñu gën ko xamé ci mam Mor Jaara di kenn ci mbokk serigne Touba yoy nga xamné dañoo jaayoon doon ci mom te doon ab taalibeem boo xam ne dañoo ànd ak moom ci woote bi yàlla boobu mu teel a wuyu ji woote boobu lool te ràññeeku ca lool bokk ak sëriñ Tuubaa way juru góor bokk ak sëriñ Tuubaa way juru jigéen kan mooy maam Mor moom soxna jaara moom mu feeñ jamono ci ak teel lenn ci histoire wax ni ñeen ñenn ñi wax 50 waye suar mo bako nono. mi ngi feeñe Bawal buñ delloo ci gestu yi haji mohammed Mahmoud nyang rahimahullahu taala mi ngi feeñ ci atum 1848 1848 ci la ci mbacke Bawal. mi ngi gënee aduna fi ci mbacke Bawal. nga xam ne maamam moo ko sosoon euh, mille deux cent soixante sept du sori foofu moo jiitu sëriñ bi mag bi ay at diggante ñett ñeent te moom sëriñ bi mi ngi gane àdduna mille deux cent soixante dix waaye ñun ñëpp nag Mbàkke Bawol gi lañu feeñee mu ganee àddina at mi nga xam ni ci la Cheikh Oumar jóge woon Makka ñëw Mbàkke Bawal di seet si Momar Anta Sali muy 1950 at momu la djek mamour diar Diarra ci jamono mu tuddé ko mohammed ali isalatu wasalaam amdan liman yafalu kullama araat bi qawlihi kun fa fil murad mom serigne Mor nak naka jekk da ciosano ci neeg yo xamne neegi diine lañ ak xam-xam ak alxuraan moo tax mu teela soobu lool ci njàngum alxuraan teel caa noppi lool daldi sóobu it ci njàngum xam-xam ci boroom xam-xam yu mag yu ñépp ràññee ci réew mi moo tax mu mujj doon géej lool ci fànn yu bari ci xam-xam yu wuute ba mujj doon kaang doon fóore joo xam ne kenn wu ko ci réew mi ba taxawal ay daara yu bari former yit ay génération yu bari te wuute. moo ko jàngal alxuraan ba mokkal ko tajwiid ko nañ ko daan jàngee ci jamono jooju itam lépp mu jàngee ko noonu gannaaw ga itam najaayam ji ñuy tuddee sëriñ bu soobi mu bokk waaye juróom wu jigéen ndey ak moo ko jàngal al ulumul yu bëree bëri moo ko jàngal moom moom nag ci wàllu njàngam mi ngi jànge alquran ak xam-xam ci diggante ay wajuram serigne mo ant Sali ak nijaayam serigne bu sobe ñuy ñaar ño xamne ne seeni at fu nek la nit daan laxase di fa wàcc ngir sàkku xam-xam borom xam-xam yi daan ñew ci ñoom di ko ci ak nit yàlla yi ñu rañ ko won ci xam-xam ak diine rañ ko ci ragal yàlla rañ ko ci jikko ju rafet rañ ko ci ci xel mu rafet ràññu ko ci taxawaay bu dëgër ci diine ak ci ak ci wàllu xeet xeetu xeetu islaam bi nga xamante ne ni toll na ci jàng it ku ne xam na ni ci université la juddoo daara ji gën mag ci daara yi réew mi ci la bàyyi ko muy jàng ci waajuram sëriñ Mor Anta Sali ginnaaw diir bu tuuti itam mu jox ko nijaayam muy sëñ bu soobe diggante ay waajuram ay nijaayam ñoo ko yar ñoo ko jàngal ndax luy mbaax ak xam-xam rek fekk nañ mu daje seen biir moo tax ñoom seenum njàng génn génnuñ seeni seeni bo loolu ci tawfeex yàlla la bokk nit dana baax waaye bu ñu la waxoon lam daj ngir baax wala am xam-xam fu ne dugg na fa moom na day ñëw fekk saaxa bi lépp di di mbaax googu tax génnut ci wàllu googu soriwut way juróom maam war maam war ànd sali nijaayam sëñ bu soobee seen maam taf seen mbàkk nu may génn nañ diggante yooyu baraw baraw nit ci wàllu xam-xam ci alquranul karim digganteem ak ndijaayam di sëñ bu soobee diggante xëy ak xëy na sëñ Samba Tukulóor ka waaye lu ci mën di xew ñetti diggante diggante yooyu Maam Mor génn ko ba làq alquran làqin woo xam ni dafa bokk ci kàng fóore yi ñepp nangul ko ko jaamu yalla ak xam-xam ragniku na ci ñi ragniku wen go xamne ne mag ñepp dañ ko ci doon yem bokkon na ci ñi gëna man alquran ci rew mi ci mokkal ak wattu ci rafetul rafetal njàng ma ak njàngin ya ci aju ak xam-xam ya ci aju yépp def na ci farlu ak góorgóorlu ba xereñ ko bu baax a baax bok ci ñi gën a ci alquran karim ci boobu diggante la jàngi fi la yaroo ci diggante sëñ am ak sëñ bu soobe mu mel ni sëñ bu soobe la gënoon a féeteel nag moom la gënoon a féeteel moom la gënoon a taqool sëriñ Mamor moom soxna jaara mu ngi bokk ci askan woo yàgg ràññeeku ci mbaax ak jub ak diine ak ngor doon askan woo xam ne seenug sharaf ñu bari saxal nañ ko seenu melo yit wane na ko képp kuñ mës a jëflanteel loolu rek nga seede ci ñoom muy askanu Mbàkke ak Mbusoobe ci ay wayjur yoo xam ne ku wax mbaax wax leen ku tudd njub tudd leen ku tudd gën tudd leen muy doomu Mamar ante Sali Mamar ante Sali Muhammad la tudd Muhammad Muhammad moo ko jur Habibullah moo ko jur mam Moor Jaara euh, doomi soxna Jaara la mooy ab taawam Cheikh Cheikhuna Cheikhul Khadim topp ji Mouhamadul Habibullahi topp ci soxna Faati Mbàkke topp ci ñeent ñooñu la soxna jaara am ci lu ñu xam ci mag ñi ak seenu mbind maam Mor jaara mii nag mooy taawu soxna jaara tug way juróom mooy soxna jaaratullah soxna Mariama Busa mi ñëpp xam mu tëdd fee ci Poroxaan di koo xam ne it tur rek doy na doy na wane mooy kan moom itam bokk ci askanu Buso bi waye bokku ci askanu Mbàkke ci mbusoo be serigne ma buso mi bayam serigne ma tabara jur ko Hamad buso jur ko ci askanu uh, keur bay bi ak askanu keur yaay gi ben jeru gennu ci surafaa yi bo ci top mu jall ci yonente bi ali sallallahu alaihi li liñu wax ci serigne touba ci ak mbokk wax ko ci walu askanam ci ak mbaax maam Mor dafa dugg foofu ci biir kon soxna Jaara bi nga xam ni mooy waajuram mu jigéen ci sorofa yu la bokk boo toppee silsila bi Mbàkke ji boo ko toppee silsila bi mi ngi daal mu dugg ci sorofa yi càllal la it goo xam boo ko toppee ay sorofa lañ sëriñ bi wax na ne ali moo di nal la ca gànnaar nga xam ne ñëpp xam nañ ne ay shérif lañ seeni doomi bàyyi lañ ci cosaan bok ci as diggante Mbàkke ak Mbusoobe sëñ Mor Mamar sëñ Mor ant Sali moy wajuram mom mam Balla aïssa mom mam maram waajur wu moy Soxna Jaara mom mam ma Buso ma Tabara Hamad Ali seenu càll la <coughs> jokku ci sayyidna Hasan ibni Ali ibni Abi Talib ak sayyidatna Fatima az-Zahra radiyallahu taala anhuma kon ci wàllu askanam ci wàllu waajuram bu jigéen seenuk sharif lu leer naññ la lu ñu nattable wut ci wàllu askanu Mbàkke it eh, am nañu ay gëstu ki xabaar yu dëgër yu saxal na ñoom it am nañu sharaf maanaam ak seenu sharif lu sax la kon ci askanu wu tedd daal la bàyyi ko woo xam ne seen doono mooy xam-xam ak diine ak wilaaya Maam Mor Jaara taalibeeb Sëriñ Tuuba di ku jeex tàkk ci Seexul Xadim doon koo xam ne dafa jaay lépp lu masa doon ci sëriñ bi doon ab taalibeem di ko liggéeyal di ko taxawu ci boppam di ko taxawu ci njabootam di dalal xelu taalibe yi ci sëriñ bi ak di leen dimbali ci niñ war a àndee ak moom ànd ak loolu lépp nag sëriñ Tuubaa yit di xool saa su nekk ci moom cër bi leen yàlla boole Muusaa moo tax Haaroona doonub yonent Haaroona axi ustut bihi asari wa saariku fi amri euh, loolee Haaroona defaloon Muusaa suñ moor taxawee na suñ Tuubaa lu raw foofu ku xam ku ne buñ lay laaj ci sëriñ moor da nga naan mooy sëñ bi sëñ bi sëñ Mor. digganteem ak sëriñ bi diggante bu bu xat la bo xam ne su leena a ci lenn ndax ni ñu bokké ñaari wajur bokké ko ay tour nga xam da ngay wax amna na ba taxal bo boo sëñ bind ci geeg gi. jëmee ko ci ci mom ci mom sëñ sëñ Mor da ca def ne min Muhammad ibni Muhammad ibni Habibillah ila shaqiqihi Muhammad ibni Muhammad ibni Habibillah nga xam ne ñoo ñoo bokk ay tour ñu bokk ñaari waajur ñu bokk ay tour leen takko di ci seenu dundu bokk fuñu feñe euh bokk nekkon salum bokk ay barab ay ay ay barab yu ñu mot ñu wërlo seeni alquran serigne Mamar Jaaratu nisfu la gane woon àddina andi waale aal seexul xadiim mbokkam ma nis fu sama baan la gane woon addina fii ci soodaan digganteem ak kilifa gii di seexul xadiim relation bu doy waar la woon sëñ Tuubaa ku ko fonkoon la ku ko wóolu woon la ku ko doyloo woon la ku ko fonkoon la ku ko doyloo woon la ku ko wóolu woon la loolu waral na ba eh, bu ngeen seetloo li ëpp ci njabooti sëñ Tuubaa yi mën naa wax ne daanaka ñoom ñëpp sëñ Modou Moustapha rek moom wóor waaye daal ñi ci des nga xam ne ay mag lañu te fekke woon jamono boobu ñoom ñooñu ñëpp jaar nañ ci moom mu jàngale. diggam ak sëriñ bi itam lu kiimaane la ndax moo ko féete ak mag te sëriñ bi itam. di ku neex a yilif ndax da koo xam daa xam kilifteef xam li ci nekk ci kilifteef tam nangu koo joxe mu jox ko kilifteefam coobare boro sunu boroom ji feeñ ci sëñ bi itam sëñ moor nangu ko su ma ko mënee tuddee am nattu dafa am natt boo xamante ni sunu boroom ci boroom saam la ko njëkk a teg ndax ci yonente bi sallallahu alayhi ba léegi euh, kër goo dem ka fa mag mooy kilifa ga mooy jiite moom nag sunu borom nattoo ko ni ko kat kii sa rakka waaye danga war a wàññiku topp ko ndax borom saam bu fi nekkoon ak sëñ bi ba jóge fi te toppul ci sëñ bi kenn waru koo yedd ndax mook sëñ bi ñoo bokk ñaari waajur te lu ñuy jàng jàngoon na ko moom sëñ Mor Jaara ragaloon yàlla lool lool lool eh, li mu eh, raka yi mu daan la gone yi sax xam nañ ko dé mbaa boog dégg nañu ko ku mel noonu nag sa rak joo xamante ni yéen a bokk waajur nga mag ko ñu ni la nag danga war a wàññiku nungul ko loolu sunu borom ci sëriñ Mor Jaara la ko njëkkee mu nungu ko te jàpp naa ni loolu bu dellu siwaatoon fii nu tollu euh, mag waññeeku euh, topp rek yaakaaruma ni kenn dana ko nangu sëriñ bi moom coobare suñ borom la moom la yàlla dogal li mu dogal ci moom euh, loolu sëñ Mor nangu na ko dara des ci muy jox ko boppam waaye ñu gis ci ay doxalin yoo xamante ni nii mat nay bàyyi xel bu baax a baax ndax moom jàngal na sëriñ bi kon sëriñu daaraam kilifaama itam ci wetu ak bokk te yooyu yëpp benn bu ci nekk gis nañ li ci sëñ bi jàngale te sëñ bi waxuñu lee ba pare def la neen lim nu wax loolu la def lim def loolu la wax bind na wax na jëf na. négut ba ñëpp xam sëñ bi mu door koy xam da koo teel a xam waaye jamono ya nga xam ne xam sëñ bi jafe sax la ko xam. subhaano rabban latifan bi xarib musaarifin lam yara xawluhu xarib. ni ko sëñ bi fonke woon ba muy dem ci géej gi bari na ci taalibe yi ñoo xam ne danañ a luñ bay nañ ko ko jox nañ koy jox seen i addiya ba ci commune Sëñ Ahmadou Ndoumbé nga xam ne ci magi murid yi la euh, pas-pasam ni mu rëy ak commune Cheikh Ibra Fall ñu mel ne ñu ñëpp néew na leen mbay mi nañ koy xaaj xaaj bi ñu dugg yët Sëñ Mor ndax fa ma ko war a féete ngeen wutuma ci <laughs> bu ko defee la ca des ngeen yóbbu ko ci maam Thierno ndax moo njaboot gi kon sëñ bi naka jekk ci kilifteef daf ko koo jox ndax dafa fekk askanu Mbàkke di doxee noonu ku mag rek yilif waaye ndok bi nga xam nag Sëñ Mor dafa set wecc waye toy te xam boromam te nangu dogalu borom ba li yalla def ci serigne bi nangu ko. serigne bi itam ni mako waxe won nga xamne lepp serigne sëñ Mor di euh, ñi nga xam ñoo nekkon fu mom di euh ñi ci bari na len yabal ci ke serigne Mor ñu def ab di ko liggéeyal bàyyi fa ay at ñu di ko ab diir ñu di liggeyal ab diggante ba serigne Mor bind bataaxel wax ne na len yu dellu ci sëriñ bi yu dellu si ci sëriñ bi mu door leen a yawe eh, mën nañ cee tudd ku mel ni Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke moom mu nanguloon sëñ Tuubaa mu bàyyaa ak moom bu wér boo xamante ne def jëfante na ko ak moom dem eh, def mu bàyyaa ak sëriñ bi bi mu defee mu bàyyaa ak sëriñ bi it xam ngeen ne Mamadou Anta Sali al wirdul xaadir yi la ñoom mag ñi fi nekkoon ñëpp it dul xaadir la ñu yoroon eh, ñoom ñëpp itam sëñ bi da leen daan yeesalal wirdul xaadir yi ñoom ñëpp ñoom mag ñëpp am na kenn ku ci ne wérdu bi nga yoroon ñaare boo dikkee ci moom du ko soppi mën na la ci yokkal beneen waaye jëmmi wérdu bi nga nekkoon moom du ne la bàyyi ko tax na moom sëñ Mor Jaara ci boppam moom sëñ Tuubaa moo ko yeesalaatal wirdul xaadir yi sëñ Musaa Ka mi ngi wax ne sëriñ Mamar jaaraay magam ci zahir bamba ko seexal defaral ko xaadir jaayante googu itam sëriñ Bachiru Mbàkke saxal na ko ci minal baaxil xadim bi mu nettali diggante sëñ Moor ak sëñ Daaru Asan ne ñoom nee na sëñ Moor sëñ Daaru Asan mbokkum sëñ Moor la ci ci farlu ci jamu yalla ak ci bokk don ay ay ay talibé ci yoonu yoonu serigne touba ah, tarixa tarixa tarixa serigne bi serigne bi ci bopam mom bayi won nako xel lol lol lol ci mbirum yëpp ci mbirum njaboot gi ak mbir yëpp man nañu wax né leppi serigne mor serigne bi ko daa lijjanti jenti daa lijjanti këram moo daa lijjanti ak njabootam sëriñ bi da ko sëñ Moor da ko bàyyi woon leppam rek mu di ko jenti mom mu fété ci jamu boromam waaw lépp sëñ Mor rek lépp sëñ sëñ bee ko daa lijjanti ña fa daa ñëw ñooñu daa indi ci kër ga mu leen di dëkkoo moo daan daan taxaw njaboot ga fay feeñ moo joxe atte ci ñoom ku cay jigéen it kañ lay jox kañ lay booleel moo koy moo koy moo koy lépp daal dëkk koo bàyyee woon man xat xadaana wa waxaana wa abaa man asraka wa lam yatuub fi ibaad muy koo xamante ni histoire mosul jóg di ko bàyyi xel ngir taxawaayam ci ak bokk exemple la ci te ak bokk moo fi jiitu lislaam ji digganteem ak ñi ma bokkal Momar Anta Sali mu rafetal lool tàmbalee ko ci rakkam ji nga xam ni mooy ku tedd ki di Cheikh naa Cheikhul Khadim di maam Thierno Ibrahim Fati di sëñ Cheikh Coro di sëñ Balla Coro di sëñ Afia di sëñ Masamba di sëñ Cheikh Absa di maam Thierno borom daaru kenn ku nekk maam Mor maam Mor maam Mor Jaara eh, jëflante woon naa yow jëflante bu rafet nga jox ko cër bi nga xam ne moom la yàlla jox moom la ko yàlla jox muy cëru mag ku tedd kii noonu la ko warmaale woon orma joo xam ni ñëpp xam nañu ni sëriñ bi def na ko kilifa li yàlla dogal ci moom muy mag gi mu ko mag mu def ko mag. ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokkoon ñoo jamono teeloon moom di ay boroomi xam-xam ci biir réew mi di ay kilifay diine ci bitti yoonu murit euh, ñi ci bari wëlbalante woon nañu moom seqoon na moom ay jëflante ngir xam-xam ba ak ragal yàlla ga ak taxawaay ba waaye mag ñi nga xam ne ñoo toppoon sëriñ bi itam euh, te bokk ci ñi ci gën a ràññiku ñi ci bari ay wëlëreem la ñoon ñu jaxasoog moom la ñoon ñi ci bari tudde nañ ko doom ràññee nañ ca ñooñee sëñ Daaru Xasan Njaay mi nga xam ne ñoom ñaar seen diggante diggante bu tax la woon ñi mu bokkaloon sëñ Morant Sali nag am na fu ñu ko tegoon ni nga xamante ni bii mag ñi toppoon wala ñi jamonante woon ak sëriñ bii tam am na fu ñu ko tegoon. ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall moom it wëllëreem la woon tudde na ko doom suñ Mbàkke Fall doom moom ko tuddee maam Cheikh Mbay moom Louga ñëpp xam moom itam ci wëllëreem la woon moom itam tudde na ko doom muy suñ Sam Mbay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. E, digganteem ak ñi nga xam ne dafa bokk ak ñoom e, Mamour Anta Sali rafetal na ko ba kenn ku nekk seere nga ci moom seere bu am solo nangul ko xam-xamam. nangul ko mag gi nga xam ne nekk na ko mag ci yow nangul ko kilifteef gi nangul ko cër bi nga xam ne suñu borom joxal na ko. ñi nga xam ne itam ñooy doomi Mamor Anta Sali di ay rakkam fonkoon na leen lool jabootale woon na leen téye woon na leen fonkoon na leen eh, ba loolu ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am nañu ko wax am nañu ko bind ku mel ni sëñ Cheikh Thioro. wàccuwaay bi mu amoon ci njaboot gi wàccuwaay bu yéeme la. te njaboot gépp nangoon nañ ko di ko doxal seen diggante ak moom te loolu lépp rek ñu ngi ko jànge ci sëriñ bi war ma jëm ko seex ngir cër bopp yi nga xamante ni moom la suñu borom dogal sëriñ Mbàkke di sëriñ moor Jaara doonoon kilifa gu xamoon lool li ko bàyyi ci kaw suuf di ko jamono soxla ñu fàttale ay jikkoom ako doxinam ci mat sëkk li mu doon te yaatal lool njaboote ñépp ba tax yàlla def ko mu doonoon delluwaay ci mboolem ñi mu jamonoon teel moom Maam Mor Jaara boroom saam muy koo xam ne ku ñu war di waxtaane la ndax royuwaay la ci lépp ci mbaax ci njub ci yiwen ci taxawu nit ñi taxawu jaamu yàlla yi waaye ci rafetal diggam ak boromam kon ak rafetal diggam ak jaamu yàlla yi. mu nekkoon jëmm joo xam ni itam ku nangoo woon jaamu yàlla la dafa bëggoon lool jaamu yàlla eh, rawatina julli ak woor nga xam ne da koo teel a def lool nga xam ni wax nañ ne soxna jaara eh, ci ndaw seen seen tuut tànk booba xam naa ay juróom-ñaari at wala yu mel noonu ba ñu commencé xàmmee ak dégg mu wax leen ni góor yàlla yépp day ñu bëgg àgg seen borom dañ daan fanaane taxaw taxaw taxawee guddi. booba sax Cheikhul Khadim moom xamul woon sax lañ ci jul mooy julli waaye da daan génn di taxaw ba bët set Maam Mor Jaara itam ca noonu la tàmmee woon moom itam fanaane taxaw ba bët set waaye di fanaane julli nga xam ni e, bis bu nekk guddi gu nekk dina julli téeméeri rakka ngir jaamoo ko yàlla di ko jànge alxuraanul karim li gën a yéeme ci wàllu jaamu yàlla nga xam ne mutasawifu nii ñi ko ci def sax bariwul koo xam ne da daan def xiyaamul layl guddi gu nekk nga def téeméeri rakk loolu ñi ngi koy lim ci tasaw mu tasaw foon yi gën a mag ñi ngi ko ci lim ñu néew la ñu tuute tuute moom siiw na lool ci ne téeméeri rakk am musu ko faat amul genn guddi ci àdduna goo xam ne du def téeméeri rakk te loolu euh, moom daanaka ku ko weesu nun xamuñu ko loolu itam day wane nekk aabid la woon waaye day wane ne zahid la woon jaamukatu yàlla la waaye ku ku ku dëddu àdduna la woon. mu doon jaamukatu yàlla nag boo xamante ne nii yéeme na waaye wër na koo yéem rek nag dañ ko war a jéem a roy ndax ci la képp téeméeri rakka lay la loolu nun dañ cee war a jàngee ni nun fit wun mën a am ak wàccuwaay bun mën a jox suñu bopp ci sëñ bi wërtu tax nu sàggane jaamu yàlla ndax moom war na nu ñuy àndi ak sëñ bi mu nekk koo xam ne euh, ku ràññiku la woon ci xam-xam ràññiku ci jikko ju rafet ràññiku ci farlu lool ci jaamu yàlla ràññiku ci dimbale doomu aadama daawut nelaw guddi bu nit ñi topp seen bànneex dee nelawit moom du yàndoor te wax na dëgg de ca loola la ne ba guddi gi fi mujj jóge daa fanaane naafil ba noppi ñëw ñu toog toog di waxtaan di yàlla ba njël ba muy waajal fajar mu jug ne ma kon daal ne tey de guddi gi neenut baat boobu la mujjee wax ci àdduna <laughs> loolu loolu laa digg ci mag ñi waaw guddi gi neenut daal di jug di jàppi fa muy jàppee la fi noppaloo te dara jutu kon danaan dëkke woor itam euh, Cheikh Mouhamadul Amin Sëñ Baara am na fu mu ko bind ci ay marché yoo xam ni euh, taalifal na ko ci Mamor Jaara bi mu génnee àddina di wax melokaan bi mu meloon di ci ci ci ci jaamu yàlla ci jàng alxuraan wax ni moom di daf daan fanaanee julli ba bët set te su xëyee day koor wax ni eh, yabiitu yu salli suma ma saa'ima wa maa juuduhu illaa ka amtaari waabili loolu mooy da daan fanaanee julli ba bët set su xëyee day woor itam waaye dafa tabe woon tabe goo xam ni Euh, maanaam tawu wax set euh, tawu wax set waame wax set ni muy sottee ndox dangay fekk ni mamoot Diarra moo gën a tabe euh, loolu ci joxe. ku dëddu àdduna la ku nëbbul ku nëbbu nëbbu boppam la woon nëbbu boppam gi di koy firndeel mooy ñu baree bari ci ci ci nit ñi fi ne xamuñu ko xamuñu xamuñu mooy kan daanaka ñu ko ñu ko war a xamee. xamewuñ ko noonu te loolu moo ko jubluwoon moo nëbb moo jubluwoon a nëbb boppam ndax xam nga nëbb sa bopp dafa bokk ci eh, dëddu àdduna yi gën a dëgër te gën a tar te bokk yi ci di gën a jafe ku am fit la woon mag mu amu fit la woon itte yu bari yooyu bëgg a dëkk bi bëgg a yor njàngale mi bëgg a taxawu taalibe yi yooyu yëpp teewut mu dem wuti maanaam mu jóg sos ay dëkk te man sos dëkk toujours bu ma ci egsee dama ci taxaw léeg-léeg ndax sos dëkk man li ma koy li may wax dama lay wax ne nit ku dem ba tekki ba mën a sos ab dëkk rek kenn gënu laa tekki ci àdduna ci réew ma nga ne nit ku tekki ba mën a sos ab dëkk ku la gën a tekki nekkul ci réew ma nga ne waxasana bi ramadaan xubaab wa laylatil xadri fa nixma rabba wax nañu ni ñi nga xam ni yàlla dafa leen defoon seen loxo jëtu seen ginnaaw ñëpp moo leen yoroon ci wàllu dépense di leen jàppale di leen dundal képp ko am soxla mu fajal la ko noonu la nekkee woon moom Maam Mor Jaara digganteem ak mbindeef yi nga xam ni moom la yilifoon bi mu nekkee Mbàkke Bawol tab gi itam moom yéeme na ndax euh, nit ñi ñaare fu seen njariñ newut jëmale leen fa dana jafe ndax damay wax ni sax boo demee ci digg àll ba garab ga nga xam ne daa am njariñ di tàbbi boo xoolee dana am ñàll su ci jëm waaye ganeen garab gum ci man da doon lu mu sëq sëq sëq te amut njariñ lu fa jëm boo fay jaar ci biir ñax mu ngay xuus waaye doomu yoon loolu nag taxoon na yoonu këram doon ngir mu mag moo xamante ni nit ñi daanañ ko yaale waxtu wu ci nekk mu doon nit ku mën a joxe aw ñam nag waaye ñam wa itam bu la ko joxee nag dana la fexe ba nga reesal ko ci jaamu yàlla. sëñ Moustapha moom nee na euh, sëñ Mor mas naa laaj mbooloo mi faral di toog ci moom kilifa yi ne leen lu ñu may jëwee en tout cas ñun de nit ñi day ñu ngi wax ne ku ragal yàlla nga ku mën a jaamu yàlla ku farlu ci jaamu yàlla nga. ku baax nga ku mën a joxew ñam nga mu ne waaw yooyu yëpp de baax na waaye joxe liñ mujj a tudd la mooma ci gënal ràññi ko woon loolu ci ñemee njaboot ñu xamoon nañ ne guddi ajuma yu bari daf daan dajale ay togg ay ñam dajale njaboot gi ñuy tudd yàlla di di dund la guddi ajuma yi bi ci des it nag këram it wàccuwaay la woon ci wàllu googu mbooleem maraas yi nga xam ne ay njabootam defal nañ ko Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Fadil sëñ eh, rakkam sëriñ Cheikh Coro ngay yegg ne ci biir ne kii nim leen jiite woon noonu leen wufe woon doon seen kilifa waaye doon seen karange bokk na jikko yi mën a ràññee ko ku mën a muñ la woon ku mën a muñ la woon bokk na ci liy tegtale ak muñam sax gim sax ci benn barab rek ci mbàkke ak li ko wër ba ni mu dig digal boobu mooy mbàkke saam ndok ak dig-digal fu jógee foofu rek génn ko génn ko te xew-xew bu ne xew na fi nit ñi tasaaroo nañu ba des ci daanaka rek moom dong waaw euh, waaye taxut mu mas faa jógee ba nit ñi dellu siwaatee euh, fi lañ ko bàyyi woon mosu fee jóg ba bañ fekkaat ko fi loolu day tegtale ak maanaam muñam waa xam tartar yi tartar lu jamono tartar lu metti metti rek da ko muñ sax ci benn barab. waaw nañ ne mag ñi ko fekkee woon nañ menn mag du yendu këram moom. mag mu ne daal boo xëyee di yendu ji ci moom ndax moom faw rek boo fa demee da nga fay jëriñu rek da ngay jëriñ ci moom ci jikko yu baax yeeg tabe geeg baax geeg lépp lenn lu nekk mu defal la ko sag bu nekk itam mu defal la ko nekkoon na koo xam ne kuñ doon kuñu kuñu wegoon la kuñ warmaaloon la kuñ bàyyi woon xel la ba tax na buur yi ak nit ci àdduna yi borom daraja yi buñ masaa bëgg daal ci kaw mbooloo mi ñi amul doole da nañ ko bayyi xel ba yu bari daawuñ ko ñeme summa salatan wa salaman dama ala allazi yusabbitu al aqdama summa salatan wa salaman dama ala lazi yusabbitul aqdaam mbooleem ñu ñu dégg ci histoire ci siyaar yi ci taarix ñu leen tudd di jàngale ci université yi amul kum ci yees moom radiyallahu anhu kooku it jaadu woon na tey yu mel noonu téere dundam gépp ñu tënku ko lu mel ni lii ñu def nii waaye mu ne ciy téere yóbbu ko ci kàggu yu mag yi waaye yóbbu ko ci université yi ñu di ko jàng bari na ci ay jaar-jaaram yoo xam ne mën naa defar adduna ak alaaxira bokk na ci li ko Cheikh Mouhamed Fadel tagge ci marché bi mu ko defal fi mu waxee ne alaqat kaana fi lawaa'i ruknan mashidan bil lataafati wal xubuuri wa halil qasdi bakkata in alammat bihim shahbaa'u min sanadin mujiiri mu ne sëñ Mor day bekkoor masaa am wala at atum bekkoor bu masaa am daal wala nit ñi nekk ci ay tartar moom keno bu dëgër la boo xam ne nit ñi dinaa wéeru ci moom mu nekk seen mbégte nekk yërmande yàlla ci ñoom. Cheikh Modou Fadil moom it daal di koy way way woo xam ne moom bi mu koy way ci kaw kaw fas wi la ne. biñ ko tàggee maam Mor Jaara fekk mu ne ndindi gi daa yéeg ci kaw fas ci kaw fas wi la taarif xasida gi mu laa tàgg Mbàkke. fas di dawal fas wi di taarif. <laughs> <laughs> mi ngi ko tàmbalee ci wafaatu cheikh ma jaara amrun azimun min mulimaati duhari demuk maam jaara mbir mu màgg mu mu ci ci xew-xewi jamono yi gën a màgg mulimaati duhari mooy xew-xewi jamono alaa xat kaana fi ruknan mashidan mashidan bi lataafati wal xaboori mu ne maam mor jaara nekkoon na di ponk ni ko suñu mbir mu nekkoon na di ponk fil la waaye ci bu tartar ñëwee. Cheikh Mamadou Fadal bi nga xam ni jaar na ci ay loxo mu jàngal ko seet na ci moom euh, sëñ Fallou sax bu séeréwul woon sax wax bindul waxul rek jëmmam ci Mamor Diarra mu jàngal ko loolu doy na Mamor Diarra ki nga xam ne moom la doon ci wàllu xam-xam bëri na ñu ñoo xam ne jaar nañ ci moom seere ak xam-xamam. Cheikh Mouhamadul Fadel daal daan wax ni ku dul ki ma joxe woon ak ki ma joxoon xam naa ci alxuraan loo xamut. Lor nuk moy bayina xel bu bah bax bah, ñoo ñi nga xamanteni ni nyo ñoo ñoo ñoo ko jaboté la ko seigne Modou Moustapha wax ak la ko seigne Fallou wax ak la ko seigne bara wax lool rek buñ ci doon def tay ji waxtaan man nañoo xey ba ngon ta du jeex jikko yu rafet ci tap ak jaboté ñep ak nango jaamu yalla bari kersa wayef lool ta baax baax go xamne ak sel sel go xamne ne rek doy na ci woné melo seigne touba ne kii moog sëñ bee bokk lépp ba nag bool bëtiku fab cër yooyu yëpp nag jaay ko jëndee ko taalibe nangoo doon taalibe sëñ Tuubaa. buñ dikkee ci ku mel ni sëñ Modou Moustapha radiyallahu anhu moom it eh, am na yu bari wax ci moom moom ci wàllu tabe gi ak man ngay joxe ak ni mu doon dimbalee nit ñi wàllu googu wax na ci lu bari. loolu la ko sëñ di wax naan. Eh, wa halil qasi bakkata in alammat bihim shahba min sana miji wa man lahumu wa man lahumu izama alamma bihim satul amiri alaha alayhim satul amiri wa man lahumu wa man lahumu izama alaha alayhim satul amiri waa Mbàkke fu ñuy jëleeti koo xam ne bu buur bëggee dal ci seen kaw dana ko ragal wekk ko ba du ko du ko ñeme sama turandoo rek bi ko ci way dana inna rasiyata fil bariyati kulliha faqadul imaamil almahiyil faayiqi musiba mi nga xam ne mu wàcc mbindeef mooy dañoo ñàkk ilimaan joo xam ne ko ñaw la ku kawe la xaysil araamili wa diaafi jamihiha fii xonsiri naw yusrin li wa ci raasiqi daal di wax ne ku daa xettali ñi ñàkk la ak ñi néew doole ñëpp nak ci waxtu jafe-jafe amé wala waxtu ak yomb amé lépp néna sëñ ma sëñ Mourou Moussa nee na ñaar yëpp téw mam Mor jaar bu lool amé day dimbali nit ñi aramili wa dhi'af jamiiha fi usri aw yusri li wajhi ar-raziq mune mam Mor Jaara daal moo doonoon khaysul aramili taw gaay yi nga xamné dal ndaysan ay jirim lañ amuñu bay amuñu ndey sañ Mor Diarra moo doonoon seen taw bi leen doon jëriñ ñëpp taw la meloon ci ñoom ci li mu daan leen defal wad daafi nit ñi a xam ne itam dañoo lompañ amuñu dara ñooñu ñëpp amuñu woon kenn kuy yaakaar ku dut sëñ Mor Diarra jami ay te ñëpp la ko doon defal nag fi loxol sibal yus moo xam nag jamono ji neex na moo xam jamono ji naqari na li wajhi raziqi kenn rek taxoon mu di ko def nag di ko woon ngir yilif mbooloo mi di ko woon ngir jënd leen ngir jëmm yàlla mi nga xam ne mooy wërsëgale te jox na ko wërsëg mu ko jox waaye leneen tax mu def sëñ Modou Moustapha moo wax loolu sëñ Cheikh ko am xam-xam la mooy defal na ko marsiya waaye wenn weer rek laa ci génne mu ne faxat na cheikh Mamar Jaara bahran mu middan bil xola kullal buxoori ñàkk nañ Mamar Jaara waaye géej la woon goo xam ne moo daa tëbb géej yépp ak kawe jëmm joo xam ne Serigne Touba seeral na ko seeral soo xam dafa doy sëkk ndax koo xam ne sëriñ bi waxal ne boppam ne pays bu mu mos dem ci pays yàlla yi rek fekk naa fi jëw bu sax muy sëppee seere su sax dafa doy sëkk Ahmadu Soxna Mbàkke moom def na ko defal na xasaayit gu gudd waaye ma génne ci wenn way rek wala ñaar mu daal di wax ne mada karimun wadaaxal fadlu yatbaahu wal fadlu min baahi min baadihi qad daa waxtaraba mu nekk ku baax dem na ko tedd dem na nga neel ko topp ci gannaawam ànd ak moom dem mu ne gannaawam nga neel sa eh, sànku na tumuranke na saakab nu balla habibullahi aabiduhu muhyi layali bi awraadin saniyaati kooku mooy doomi balla ma nga moo doonoon abibullah di ko jaamu kookee moo daan dundal guddi yi ci ay wérdu yu kawe ci diggante ak borom loolu ba tey sëñ ma dem mi nga xam ne ci mag ñi la bokk bokk ci ñi sëñ bi yaral boppam mu xam ko moo seere ci moom la sunnooni ku mën a way la ci ñi daa daqa ci ñi daa wayal sëñ bi eh, sunnooni la tuddoon mu defal na maam Mor Jaara mu it xasida gu neex mm-hmm. mu daal ne ko allahu akbaru xaabat diinu wal warau fa amma haada albaraaya alxammu wal jasan mu ne allahu akbar yàlla màgg na li ma leen gën a biñ ma tàggee maam moo jaar li ma jàpp mooy xaaba diinu wala war diine dem na sàmm dem na mbindeef yëpp nag daj na leen njàqare ak yonjo ñim jamonoon teel seede nañ ci moom ay seede yu rëy rëy yu wane euh, euh, dara wax nañu ne bi mu wàcceeb liggéey sëriñ bi wax na ne moom day moom sëñ Mor ak sëriñ Mbacke Kajoor Cheikh Ibrahim Mbacke moom sëñ Mor sëñ Mambala Aysa ne ñoom ñaar day ay ñaar lañ wax mosuñoo tooñ seen borom mosuñoo tooñ seen borom loolu bokk na ci seede yi nga xam ne sëriñ bi seede na ko muhammadin wal ali wa sahbi nujub من عن خلوبهم جل الله العجوب كر يو ماك ييب كر غو سي دم فك فا سيغ مور جار من نانكو باño تود مور وايي توراندو حقيقه با دغ سيغ مور جار داخ بو نيوي في سي دارو خوتو فك فيم سيغ باك مدينه مو دون او توراندو تا بوك سي توراندو يي ماك بوك يتام سي اسانتيو يي خامي جامونو من نكو واني ni kii lañ ko tudde ndax aw doxalin ci jaamu yàlla ci bëgg ak bokk ci nangoo liggéey ci fonk kilifa. ñi nga xam ni dañu fab ay doom di ko tudde ci ndigalu sëriñ bi bari na ci ci suñ mbokki mbusoobe yi eh, ci maam Cheikh Ibrahima Fall kenn ku nekk fam nga doom tudde ko Mbàkke moo gis rek lañ ci jublu mooy jëmmam yi ci jublu maam Mor Jaara sëñ Ahmadou Sakhir Mbaye moom la tudde kenn ci ak njabootam muy sëriñ Sam Mbaye ku ne xamna na Serigne sa mom mam Cheikh mam Mor Diarra la lako tuddé Cheikh ahmadou Kabir muy mam Cheikh Mbay mi nga xamni ni umpelé wul ni ki nit ni jublu yaakar ko ci sen diine yaakar ko ci njangalem ak jëfam muy Serigne Sam Mbay Mor Diarra Mbakke moom la ko tudde turu Serigne Sam bi nag lii sababu ñu tudde ko maam Mor Jaara wéy juru sëñ saam bu jigéen ci boppam moo ko xamle nee na dañoo nekk fii ci kër maam Cheikh gi ñoom jigéen ñi maam Cheikh melle ku tëdd ci piliyaan bi ni gam-gam ñoom ñu jàpp ni dafa forbët fekk ñoom dañ doon xolli gerte ñu daal di commencé jël seeni ndab baña dok dalu gi sëñ bi di dok di dallu commencé di dem mam cheikh ni xefeet ni non na da ngeen di toxu soxna si nga xam ne mooy doon juru sëñ sam mom lañ laaj lolo mun ko ah, waaw mbaye dañoo japon ni da ngay dallu ñu bañ a dal gi moo ñu doon dem mun ko déedéet wallaay so mag ju baax ji ca Touba moo may laaj turando ci yow mi fi fekk ci yow lay dal loolu moy sababu mam cheikh tudde seigne sam mamour diaram asa wa inni yawma so izhari fakhri la ya bil ijhari jant la bo xamanteni ni musul dañ di leral ab gidd la bo xamanteni musul dañ di wamate. ba bi sun borom dogale mu dëkkaale ji ak boromit bayina fi jeexital yo xamanteni ba ila yawmi diin du far loolu nak jamono daf koy soxla waxtu wu ci nek ñu war di ko nafar di ko njabot gi di len ko sax te fexé itam ba impliquer len bañ dund ci ciobare yalla la jo xamne somna yalla mu defé ko ni nu diko ko te diko ko te ñaan ci barkem ci jam ak liggey bu liggey l'islam xam-xam bu rafet ba jaamu yalla gu rëy ga xol bu set ba wecc wecc wecc ak kersaga ak tabega jikko ju rafet ja sunu maam ju tedd jooju radiyallahu taala anhu yàlla na yàlla taas ci barkeem. yàlla na yàlla taas ci barkeem te xalifa bi nga xam ne moo fi nekk ñi fi jaar ñëpp it béy seen waar ci tool bi mm, di doxal ba nëgë ni moom it mu ne fi yàlla na ko yàlla may ak dëgër ak wér mu ànd ko njaboot gi ak rakkam yëpp ak sët yi ak yëpp ba liggéey bii nga xam ne ñu ngi koy sëmb te mooy jàkka ju mag ji nga xam ne murid yëpp war nañ am na ci cër murid yëpp war nañ ko bàyyi xel ku ne war nga caa barkeelu war ngaa ruus jàkkaarloog sëñ Tuubaa ëllëg ñoo la jàkkee sëñ Mor Jaara day sama dërëm mës caa dem loolu murid bu ne war na koo moytu kon nag kenn ko ne war na cee xool ca sëñ ba te sàkku ci ngërmul sëñ bi te dabu ci ngër ngërmul sëñ bi dàkk ci lu neex sëñ bi kenn ku ne barkeelu ci te ñaan yàlla musal ko te aar ko moo ki njabootam ak i taalibeem li ko sëñ bi ñaanal rek jasaakumoo bi jasaa il xayri sul xidami fa xaadakum li muraadil barri sil xidami kon yàlla na ko yàlla yàlla na leen yàlla fay la ko sëñ bi ñaanal pay gu yiw yàlla mi nga xam ne moo jiitu te du fi jóg te wommat la jëmale ci la mu gën a bëgg rek yow yaa loolu la ko mi wa at atlubu fi daarini faw sakumu bi xibtatin yow ma jullu naasi fi demi maa ngi ñaan bu euh, maa ngi sàkku euh, ngeen àdduna ak alaxira ngeen am ci euh, xibtatu mooy loo leen di ñee <laughs> bu buñ àggee ci bis ba nga xam ne ñu bari dañuy rëccu ngeen am fa xibtut kon nag mu daal koy teg ne ko tiiboonu foosan bi haasa wafraxoo jasalan yej si ku ma xayru man yej si sawil xidami mu ne ko nangeen na seen xel dal te ngeen bég bu baax ki nga xam ne mooy ngën ji kuy fay kuy liggéey dana leen fay jëmm ngi joo xam ne daal turam yu bari rek tegtal la ci ne nit ku màgg a ngi nii nit ku la ngi nii nit ku am daraja ci yàlla ngi ni loolu nag mënula ko turandoom wa sallallahu alayhi wa ak jaamu yàlla mit doon tegtal ci ay ngëneelam ya mu làmboo ak yiwu bari wa nekk fa moom ak xolam bu rafet te yéene ñépp jàmm te ay jikkoom lépp di alxuraanul karim mu mel ni rek dafa bokk ci ñi nga xam ne dañuy dëggal li sunu borom di wax ne innama yuminu bi ayatina allazina isa zukiru biha xarru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum laa yastakbiruuna tatajaafaa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun na ko yàlla fayal te taas ñu ci barkeem bi jaahi rasul mu ne buñ ne ko kii diw la bokk ci Mamour Diarra mu ne cofeel googu mu ne cofeel googu da daal di xëccu ci xolam jëm ci moom mu ne noonu rek la leen ko mën a misaale wa kullu insaanin taallaqa biya fa asli an umarahu ya rabbiya بجاي خير المرسلين يا جميل وجاي حسبه ومن لهم يمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله